waxoon lu dëgg asalaamualeykum wa rahmatulah taala wa bi nga xam ne moom mooy altine fukki fan ak juróom ci koor wax dëgg yàlla ngay avancer di dem muy gën a neex di gën a metti ci ñenn ñi tey nag ñu fas yéene nag liñ leen ko waxee woon. eggali jaar-jaaru Abu Bilal ak ibbi téléphone nii ñuy daal di dugg laajte ndax wax fa dëgg yàlla nit ñaa ngay sant ña ngay kontaan peccum nii nag bu neexee yaa jaatee ci mbagg ja ñu ngi remercier bu baax ñi nga xam ne mooy la vache qui rit di fromage bu nooy boobu nga xam ne dafa tax ba ndante nooy te balaay neex nga def ko ci mburu boo xam ne mburu bees la wala mburu bu fanaan yaa xam bu la neexee nga def ko ca soow bu la neexee nga def ko ci fu la neex waaye la vache qui rit daal moo mën gaa yi du seen morom damay ñëw ci li nga xam ne mooy sànqal bii ngeen seen bu dog jotee nga ut fexe ba am sànqal noflaay am na bépp surface boo xam ne dañ ko fi jaay maa la wax lii soxlu nga koy lay soxlu nga koy euh, sebet ndax moom ci boppam set na amul xeer amul yax amul pënd amul bant am na hygiène yomb na te ay sénégalais ñum ñoo ko moom rawatina dugubu sénégalais yi nga xam ne mooy suñu mbokk baykat yi moom la ñuy bay sachet bi képp ku ko jënd jàppal ne gën ngaa gàtt juróomi dërëm jàppale nga ko baykat bi nga xam ne moom mooy jaay dugubam kon nañu jàppale ñi nga xam ne ñooy sànqal noflaay <laughs> wallaay wallaay wallaay wallaay <laughs> xaaral ma tëral la nii lii nag xam naa ne da ngeen ne oustaz bi moom affaire u taar la lii ngeen seen nii pour jigéen ñi nga xam ne ñooy raxas seen bopp moo nekk nii dafa nekk gamme de produit boo xam ne macha allah day taaral jigéen maanaam karaw gi da koy taxal da koy beesal day tax nga gisee jigéen nga xam ne kii wax dëgg yàlla ku na ku nammul dara ni ko sama patron wax di ko waxee nammuñu dara kon xool leen ko bu baax baax na ci raxas karaw ah, afra la ngay gis nga daal mooy maanaam yooyu nga xam ne mu ngi nii xam ne ko nag foo leen dem laajte ko di ngeen ko gis ñoom ñaar ñoo bokk ndey waaye bokkuñu baay kii mooy gën a piire bii nag pot baa ngi nii dafa am ay pot ci biir gis ngeen <laughs> sallaaw sallaaw ak na oustaz ak kam ni gis nga yii yëpp ay pot la yoo xam ne dafa ànd ak ay ñam-ñamam yoo xam ne daal gis nga dem nañ sa ba am na loo xam ne mayonnaise nañ ko tuddee ci biir gis nga mooy air mayonnaise bi waxuñu la nag mayonnaise bu ñuy jël di ko lekk mayonnaise su karaw <laughs> sallaaw macha allah mu ngi nii kon jigéen ñi nekk ci salon yi ak ñi nekk ci kër yi yéen daal na ngeen jëfandikoo nii waaye nag ibbi naa téléphone yi ku ci am laajte bu neex bu neexee daal dinaa la jox cadeau yi ñu ànd ceeg ñi nga xam ne nag ñoom ñooy bés deret laay dama woor nag waaye dama leen di jox benn secret ci lii képp koo xam ne woor nga perte sa énergie bëgg a regagnewaat sa énergie am ko del naan bi boo ko naanee koo jàkkaarloo dina la ndax yow da nga woor war a woorloo ndax énergie be ngay àndal mbokk yi bu ñu tënkee loolu yëpp ak suñu partenaires yi nga xam ne ñoom la ñu àndal ñu may leen waxtaanu koor ci yor yoo koor ki nekk ci réalisation ba di Youssou Da Silva ñu dëppee ko Pierre da Silva ànd ak équipe bu mag bi nga xam ne ñoom laa bàyyi foofu ku ci mel ne ñoom Babacar ñoom Bamba ñoom Top ñoom Aline ñoom Sila ñoom euh, Vieux Diouf ñoom ñëpp ñanga foofu jàpp ci liggéey bi waaye ñu jàpp ne incha allah Youssou Ndour woo na ma nee na nangul na ma li nga xam ne moom laa ko ñaan kon bu sobee yàlla bu ñu waree ba nga xam ne premier week-end bi groupe Kouthia Show ñoom ñëpp dañuy dem Saly def fa ñetti fan di ajjuma samedi dimanche yoo xam ne mu nekk weekend boo xam ne weekend show lay doon <laughs> Ndour Waly Mbergane sagal nga ma nangul nga ma loolu li nga xam ne nag mooy ndàmpaay yi ak enveloppe yi ma war a jox équipe bi kooku maa ngi koy delloo sama partenaire yi nga xam ne ñoom laa nekkal ci émission bi bu ñu indee enveloppe rek ñu tasaare ko ñi nga xam ne ñoo nekk ci émission waxtaanu koor maquillage yi bu ñuy ñëw ñu ànd ak seen borom kër ku ci amul borom kër boo ñëwee na nga nekk sama wet ndax ma mën leen a ndax yaakaar naa ne loolu dina gën a tax ñu seen xel waxtaanu koor ci toogaayu koor waxtaanu koor ci xoole koor waxtaanu koor